nekk ba gone jël nañu ay gaal di dem ñii ña nga jëm Espagne ñi léegi Nicaragua la ñuy jaare pour dugg États-Unis même ci enseignement bi sax ba école tijjee gis nañu euh, que ni école yi bëree bëree bëri euh, manqué na ay ay enseignants parce que ñoom ñëpp jël nañu euh, yoonu Nicaragua bi ba dem États-Unis muy jafe-jafe boo xam ne si ni ah mi ngi fi mais loolu tamit il faut ñu indi ci solution. kii honorable mooy ñaq déet mais ñaq mais te mais mun leen a ñaqloo ci dara. mun leen tekki naaju ni ngeen ñaq mais il faut nga jox leen lu ñaq tamit. waaw bu ñuy bu wax ñaq tedd. waaw moo déggee ñaq ma nee ñaq rek. waaw tedd laay laay wax ci suuf. waaw parce que damaa jàpp ne nit ñi dañu war di ñaq. ji tedd ñu door a tedd. waaye bañ a bëgg toog muy dox kooku ay jaaxal. maintenant xam nga dama la wax sànq. ci atu yi Sénégal am. ne serait-ce que ci côté mbay. oui noonu laa ko noonu lañu amee ay ay ay atu maanaam ay jumtukaay ci wetu sàmm. Mhm. am ko ci wetu napp. ma jàpp ne ñetti secteur yooyu suñ ko réformer def ci lañ ci war def ci alal ak ci xam-xam man jàpp naa ne boobaa li Sénégal yëpp ñu doy ci liggéey loolu. Mhm. maintenant dafa am loo xam ne aussi Mahfouz dafa am ci réew mi muy problème boo xam ne aussi jàpp naa ne war nañ ci waxtaan ñun waa réew mi. mooy gis nga gone bu juddoo ci Sénégal. ay waajuram dañu jàpp ne c'est une épargne vieillesse maanaam dañuy jàpp ne bu ñu màggatee ba mënatuñ moo leen war a yor xam nga loolu lan moo ko indi li ñu wax couverture sociale couverture sociale moo amul ci réew mi sécurité sociale protection social boo màggatee doo am loo dundee xam nga boo xoolee tey Sénégal ñi nga xam ne bu ñu bu ñu liggéeyee ba ba jël retraite dañu am lu ñuy jot mhm. mutuñu vingt pour cent ci dëkk bi te li ñuy jot du dara te li ñu jot du bari mhm. waaye waaye ko jot mutuñu vingt pour cent bu ñu bu leen seeni doom yor bu ñu màggatee daañu tumuranke mhm. loolu moo garaaw modèle social boobu moo baaxul. si moo tax ay réforme yu bari la ñu daal fexe ba Sénégal képp ku fi juddu parce que nag man dama jàpp ne jaaduwul ab baykat bi bay ba am ba am ba am 60 ans continue di dem tool jàpp naa ne waroon nañu mën a organiser réew mi ba baykat bi sàmmkat bi nappkat bi safoor bi ku ci dem a dem ba say at retraite jot ñu war a wut loo xam ne dañ koy teg ci sa loxo. Mhm. nga di ko nga di ko jëfandikoo su ko dee bu la say doom dimbalee nga dem bu la say doom dimbaliwul nga dem mais boo xoolee problème bi am mooy li ma la sànq xale yi seeni waajur dañ leen a considéré comme épargne bi vieillesse maanaam ñoo leen war yor bu ñu màggatee. Mhm. yow ngay xale gis say waajur ñu yaakaar ne boo màgget bu ñu màggatee yaa leen war a yor te yow yoroo dara jàngoo amoo métier. mais la lay la ngay mujj décider mooy man damay préférer génn génn ba faatu ci àll bi mooy gën ma toog di gis sama yaay ak sama baay ñu naan ma góor gu yaafus nga xale yi dem man li ma gëm yóbbu wuñ seen bopp mhm. li ma gëm mooy xaruwuñu réew mi niñ ko organisé mhm. ak pression sociale bi tamit moo garaaw mhm. ba euh, xale bu fi toog di xool say wajur ñuy tumuranke li gën mooy nga dem ba faatu nga gàddaay nga gàddaay loo am baax na. mais mais ak situation bi nga xamante ne réew mi mi ngi ci euh, jafe-jafe yi nga xamante ni lim nga ko fi léegi ah mu bari trop jàpp nga ni Amadou Ba am na chance pour. Euh, am am nga chance <laughs> am na chance pour pour pour gagner euh, ak li xamante ni yëpp sénégalais yi tey lim ay problème ñu jàpp ne an ca la bokk ci la bokkoon ci ñi yore réew mi. xam nga damay bañ a dugg ci ndax mu Amadou Ba. mën na moo ko defee mais xam nga da ngay jàngat dañuy jàngat. am lu tax waaw. Euh, ñi nekk ñi nekk candidat la candidature dama ci xam ñu bari am ci xarit am ci rakk ci xarit vraiment. waaw pour le moment tànnaguma candidat. amagoo candidat. pour le moment. waaw hmm. ah, bu ko tànnee naa ko wax. donc yàgg nga ko yàgg nga ko wax nag. yàgg nga wax ne yaa ngi ci liggéey pour. Ah, am ñuy liggéey tànnaguma candidat bu ma tànnee candidat maanaam li nga xam ne ñu wir ni moom du ma duñ nekk samay candidat. mooy mooy képp koo xam ne mas nga allié wu Pastef <laughs> kooku moom du nekk sama candidat. mais jaaxal mais mais waaye ñi ci des nag mën nañu. mais honorable honorable honorable c'est-à-dire yow lan mooy sa problème ak sa ak Ousmane Sonko. non pas du tout c'est un fasciste. mais tamit mais. Ah. c'est un fasciste. c'est-à-dire que li mu li non c'est un fasciste. c'est un c'est-à-dire ñu bëri am nañ problème boobu. non mais seen problème la. président euh, Moustapha Diakhaté seen problème la c'est-à-dire bu baaxoon ma bëgg mu mu mu mu bu baaxoon ma bëgg ko. ab fenkat la yeekatu fitna la. ci ay fenam fanweeri nit faatu nañ ci réew mi. ci ay fenam ay milliards état bu Sénégal yàqu na fi ci ay fenam ay milliards doomu Sénégal yàqu na fi ci ay fenam ay doo milliards ñëw ci réew mi wóolu Sénégal ñu fi yàq na ko noonu man munu maa def lu di ko xeex c'est pourquoi a jàpp ne dañ ko war a teel a jàpp nañ ko a dissoudre Pastef def nañ ko mais combat bi dafa des. lan moo des pour man tous les ñëpp a dugal ci na ëpp la def xamul li nekk ci kaso bi déjà mooy ah Pastef entreprise terroriste. une entreprise insurrectionnelle entreprise terroriste insurrectionnelle ku ca bokk ku ne kaso mooy sa kër. d'accord mais mais euh, président am na ñu naan génne nañ la tax kii yeewu APR dàq nañ ma dàq nañ dàq nañ non dàq nañ la loolu kay loolu kay c'est affaire lu ah, nekk la lu nekk lu nekk <laughs> waaw dàq nañ la dàq nañ ah. dafa am ñu wax ne. réeroo ak Macky ba léegi. non non yéen a ngi yéen ngi waxtaan. ba léegi soxnaam yéen a ngi kii. ñu bëri bëri fi ne nii jàpp nañ ni. gis nga en génn gi moom ci kaw la nii rek. mais yaa ngi ci biir na gis nga ma waaw weesale naa sama bopp di di fenn sama bopp man. waaw weesale naa sama bopp di nax Sénégalais yi. Mhm. Macky Sall keroog bi coow amee ci mois de mars. Mhm. ba ma dàqee keroog mois de mars lañ toog lañ mas a toog. ngeen gëj a toog. non déglu ma bi ma dàqee ba ba mois de mars gisuma dégguma ko. waaw tàggoo lañ def carrément. Mhm. waaye bi Ousmane Sonko ñëwee indi fitna ci réew jaarale ko ci fen effectivement tooñ ko ba tooñar bi ko ne moom dafa complot ak moom pour mu bañ a bokk ci élection yi. Mhm. effectivement ci réew bi ba may dem ànduma woon ak moom donc ay souci am nañ waa société civile la àndaloon. ginnaaw bi ma continuer man xeex bi may xeex Ousmane Sonko nag damaa soxla Macky Sall sama wet. ah. damaa soxla Macky Sall. ci sama wet ah? tamit sa wet. bien sûr. parce que man li ma gëm mooy fii 50 ans war nañoo fexe ba jigéen dootu jur ku mel ne Ousmane Sonko ci politique c'est un combat républicain c'est un fasciste c'est un insurrectionnel c'est un terroriste ku mel noonu place am du république place am du démocratie et malheureusement vous la presse vous n'êtes pas suffisamment conscient du danger que représente Ousmane Sonko mais ça vous risquez de le regretter il les Allemands l'ont fait en 1930 dem ba àndoon moom on connaît la suite la deuxième guerre mondiale les gens l'ont fait en, en, en, en avec Mussolini des intellectuels des, des journalistes ñoom ragalu ñeme ñeme wu ñu wax dëgg ils connaissent la suite mooy musiba donc encore une fois moi je sais que combat bi may mené contre Ousmane Sonko mon premier allié c'est l'État du Sénégal et c'est président Macky Sall kon mën nañ jàpp ne li nga wax fii mën nga ànd ak Amadou Ba ci élection yi oh, non man ab ah, mën na maa ànd ak moom mën na maa ànd ak bien que bon ñoom ak Aliou Ngoye ñoom que defe naa ne li ñu def gënut. buñ jonn oui oui pour man euh, gënut li ñu def. buñ jonn moom moo ci gën a bett ñëpp nag. ah man de parce que. Euh, euh, ah, man de ni mu jege wante ah. Macky Sall fi ñu jaar yëpp. ah dama cee xam dara man maa bëri jàkkoon nañ ñi ku nekk ko mën a def loolu ba mu des moom waaw. ma jonn maa ko njëkk a yëg ne day nekk premier ministre. yaa ko njëkk a yëg. Ah. demee naka <laughs> moom maa ko njëkk a lan moo xewal lan moo xewal nekkee premier non non c'est comme ça bon parce que quand même j'étais au cœur ah, bi ñu bés premier ministre maa ñu ko ah bien donc bi ñu ko falee def ko premier ministre sama xol sedd gi trop ma ànd ak moom di liggéey di koo gis saa su ne. Mhm. ma di ko jàppale ci liggéeyam mooy en tant que premier ministre loo bu ñëw assemblée nationale ma fexe ba mu jàll. ensuite moom itam di ma jàppale ci sama liggéey. Mhm. c'est-à-dire que bu ma faatoon tey ñu ne ma dem alaxira ñu ne Mohamed Dionne def na lii mag sal du ma gëm ne am na jamono yii passé am na benn waay bu ma ñëw ne ma way bun ne na nangam nangam ma ne ko bun du wax loolu. Hmm? avant muy avant muy déclaré candidat candidat tey wax dëgg yàlla bu ma ne woon grand damaa bëgg a nekk candidat bu Macky Sall tànn bu ma tànn dama naa ko bu ci saxal xam et puis bon man foos bi ñu may dàq APR dañ ne damaa indiscipliné. Mhm. nee na indiscipline militante lañ ma dàq waaye jàpp naa ne ñoom. ginnaaw APR daf ne Macky Sall tànnal nu candidat. koo tànn baax na waa Benno ne ko tànnal nu candidat koo tànn baax na ku mu tànn ku ne ñoom ñëpp dañoo waroon ànd ak lu tax moom bi ñu ko def premier am na ñeneen ñu ko gënoon a ne mën a nekk premier mm-hmm. am compétence bi xëy na ab ko lii ëpp ko légitimité. si Macky bàyyi leen fa def ko premier ministre taxul nit ñi woon gedd Macky Sall nit ñi gedd APR. Mm-hmm. la même chose pour Aly Ngouille ak ñoom Mame Boye Diao. Mame Boye Diao aussi ah. oui cest pour man ñoom ginnaaw bokk nañ ci parti. parti ba ne na Macky Sall tànnal seen xel waruñu xalaat bu tànnee kenn ñu ñu naan dañ ko fi bàyyi et ñoom dañoo war a ruus waa benn bëgg yaakaar sëñ Mbaye Thiam war naa mën a bëgg a nekk président de la république. Mhm. Pape Sagna Mbaye war naa bëgg a nekk président de la république. Aliou Ndoye war naa bëgg a nekk président de la république mooy mooy allié yi ah. allié yi kenn ku ne ci ñoom bàyyi Macky Sall ne ko tànnal mu tànn ci waa APR